alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah bokk yi ñu bokk sant borom bi subhanahu wa taala seere na amul benn buur bu nu war a jaamu bu dul moom noo ngi baalu àq ñëpp te di baal àq tey ñaan borom bi subhanahu wa taala mu bokk ñu jéggal ñun ñëpp bokk yi ginnaaw bi ñu sante yàlla ñi ngi koy sant ci jagleel gim ñu jagleel guddik laylatul qadar sunu xutba tey mi ngi jëm ci ngëneelal laylatul qadar wala manaqib laylatul qadar noonu ko sëriñ bi waxe ci xasidaam googu alhamdulillahi almujibi l qadar man qassana fadlan bi laylatil qadar kon sant googu ñi sant borom bi subhanahu wa ci jagleel gim ñu jagleel guddi googu muy guddi démb gi war na bépp jullit boo xam ne yaa ngi dund ci kaw suuf guddi goo xam ne bokk yi moo gën junni weer moo gën junni weer nga xam ne boo ko doon këlkin dana mat juróom ñetti fukki loolu nag ku yàlla dogal nga tasee guddi googu sàggante waru la ca nelaw waru la ca la la ca war rek mooy nga góor góorgóoru ci ay jaamu yàlla suñ borom wax ci alquran inna anzalnahu fi laylati qadr wama adraka ma laylatu qadr wama adraka ya muhammad ma laylatu qadr suñ borom ne ko laylatu alqadr nag xayrun min alfi shahri moo gën junni weer mu ne ko guddi googu kat malaayika yi dañuy wàcc te nazalul malaayika daal di indiwaat nag baatub ruu ruu googu boo demee ci ulama yi am ci ixtilaaf yu baree bari kenn ku ci nekk ñu ne lii mooy ruu ñoñu nak bi ni ñew ak wacc ci ndigalé ya seen borom lañ koy défé ba jant bi di feng. bokki xam ngeen né nga nee laylatul qadar lu bari la lu mag la képp ku sun borom xagn yiw laylatul al mahrum nga kun xagn nga waaye képp ku sun borom dimbale ci ci bopam ba nga fekk guddigi gi ko nang ko wara taxawé kooku lañ tudde alfais as-said mooy ki texe ba am ki tuufu ba noppi taxe ki tuufu ba noppi texe bokk na ci nga ne la leetul xadar bokk yi suñ boroom wàcce gim ci wàcce alquran wàcce gim wàcce alquran ci guddig laylatul qadar ci yonant bi sallallahu alayhi wa sallam inna anzalnaahu fi laylatin mubarak xam nga inzal alquran suñ boroom dafa daf koo bind ci lawhul mahfuz munajjaman munajjaman waye hadisa bu xew bo xamne warna xew ngir yonnte bi saa war koo jottali ummatul umma umma bi sayna Jibril la sun borom da jox la dëpp aya ba depp dëppoog hadisa ba mu jox ko yonent bi yonnte bi wàcce ko jox ko xeetu aw xetam waye jumlatan nak mom nuzul alquran jumlatan kana fi laylatul qadar sun borom mi ko wàcce ci guddig laylatul qadar ci lahul mahfuz moo waral kon bokk na ci ngëneel yi ak taxsiis yi mu am mooy wàcce gi fi suñu borom subhanahu wa taala wàcce maanaam alquranul karim bokk na ci taxawaay bi nit kiy taxaw ci guddi gi laylatul xadar lim koy mën a jural mooy suñu borom jéggal ko ay bàkkaaram yu njëkk ak yu mujj moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam képp ku taxaw guddi gi laylatul xadar maanaam ku dundal ku dundal guddi gi laylatul xadar ci gëm ak sàkku bi yool suñ borom dana la jéggal sa bàkkaaru njëkk ak yu mujj waaye nag waxoon naa ko fi ci yeneen xutba yi jàll alkabairu lamam al yu ndaw yi waaye am na ci bàkkaar yoo xam ne moom loolu mënu ko far loolu it ñu bàyyi ci xel borom xam-xam yi nag doona wuutee ci guddi gi laylatul qadar wuutee goo xam ne wuutee gu bari la am ñu ne bu ne tey lañu um koor ban na tey lañuy wari guddi gu ci nekk guddi gi laylatul xadar la am ci ñu ne njëlbéenu guddi kumte am ci ñu ne fukki fan ak juróom yi am ci ñu ne ñaar fukki fan ak benn noonu lañ ko toppee noonu lañ ko toppee ba kenn ku ci nekk indi ci sab gis-gis ca loolu li muy jur mooy arrahma mooy yërmande ndax bu ngeen gisee bayit yooyu ñu askanal sëriñ bi ca sëñ bi fekkoon ko fi mooy duunaka yaa man laylatul qadri tarum ku setantal bayit yi da ngay xam ne sëñ bi lu mu fekkoon ñu nosafi la boo demee ba ca baleen xab wa ma nga naan euh, kama bihi xaka ahlul ulum ahlul ulum comme ni nga xam ne noonu la ko borom xam yi nettali woon ca Muhyiddinul Arabi borom xam-xam bu mag la ca ku ne xam ne bokk na ci nit yàlla yi mu tasawuf yi Muhyiddinul Arabi ni sëriñ bi waaye ñu la waaye li mu bokkul mooy usulub bi ak ziqa bi waaye comme bu feñe bi sàngam bi sàngam bi sàngam lolep muy bidul arabiy indi na ba ci guddi laylatul qadar gi nga xamne ne um ben fanu dimas muy ñaar fanu juroom ñaari dem ci guddi gi ñuko don magal bo demé ci beyti muy dina arab arab yi tamit nga ko jéfeké li nga xamne timit non lay deppok aljuma bo demé ci beyti muy muy dina arabiy dang ko dang ko jéfek kon lolu ikhtilaf bobu am lolu serigne bi way fekkon na borom xam-xam yi maanaam woy ko moo tax mu wax mu wax ne comme ni nga xam ne noonu la ko borom xam-xam yi nettalee boo demee ci wàllu borom xam-xam yi ba tey ci tuxu gi laylatul xadar di tuxu nangu nan tuxu gi waaye ci fukk fan yu mujj donc ci ci la wax na ci la ci la ci lay ci lay tàbbi imam malik imam shawri ishaq dégg nga sayyidatu aïsa ñeneen a ñeneen booy basu yooyu yëpp da ngay gis kenn ku ci nekk sa rëyu ci guddi gi laylatul xadar googu waaye loolu lépp nag li muy jur mooy ixtilaaful ulama rahma ñaari hadith yi nga xamne ne yonte bi sax dafa ne iltamisuha da ngeen ko lambu wala tahayyaruha da ngeen ko natale hadith yoyu mi ngi ci kutubu hadith yeb bo debe dang ko ci fek waye teewu ñom liñ wax ñaar hadith yooyu dañ wax ne nañ ko làmb ci fukk fani yu mujj yi ñu tëddee ko ci fukk fani yu mujj yi ma waral xadis beneen bi ñëw nak ne guddeeg laytul xadar ci ñaar fan ak juróom-ñaar ci lay nek loolu muy bi nga xam ne moom la waa ahlu sunna sukkandiku léegi nag loolu bokk yi liñ ci jàppe mooy xam-xam moo yaatu ca borom xam-xam yi seeni wuutee yërmande la moo tax nit ki li mu war a fas mooy saa yu umee koor na jàpp ne guddi gu ci nekk ci moom guddi laylatul xadar la loolu rek moo ci am solo asalafu saaleh bokk yi dañuy wax ne suñ borom nëbb na ay mbir ci ay mbir nëbb na guddi laylatul xadar ci biir guddi guddi ci biir weeru koor kon lim lay sàkk li ñu sàkku ci mooy na dundal guddi yëpp bul neenal benn guddi guddi yëpp na ko taxawal ci ay jaamu yàlla ci ay naafile ci ay zikkar ak lu mën a doon mu nëbb assalaatul wusta ci biir julli kon bu bàyyi génn julli na nga fonk julli yëpp mu nëbb waxtu mi nangoo ñaan ci bisub àjjuma kon boo xëyee suba ak àjjuma ba jant bi so jàppal na waxtu ci nekk la boo ci ñaana yàlla nangu ko waaye ne mu nëbbu ismullahil azam muy turu yàlla bi nga xam ne mën a tudda ismullahil azam ci asmaullahi yi kon jàppal ne turu yàlla yi bu mu ci mën a doon bu ko bàyyi jàppal ne boobu mooy ismullahil azam waaye mu nëbbu ngërëmam ci topp yi ngërëmal yàlla suñu borom daf koo nëbbu ci biir topp yi kon bul bàyyi benn jaamu yàlla boo xam ne dana tax nit ki am ngërëm mu nëbbu yàlla nëbbu am meram ci biir mooy yi kon fexe fexe la bàyyi mooy yàlla yëpp fexe la ba bàyyi mooy yàlla yëpp su borom nit euh, nëbbu diggu doomu aadama ca xamu kañ la doomu aadama bi di faatu kon doomu aadama bu ci nekk war naa xë war naa jàpp ne saa su xëyee ruwa mën naa rot yooyu nag nit ki su ko dee xalaat ak di ko def dana tax mu gën a góorlu ci diggante boromam subhanahu wa taala bokk na ci ngëneel laylatul xadar yàlla ci borom suñu borom subhanahu moo tànn weeru koor muy weeru ràññeeku ci biir weer yi tànn jamonoy koor muy jamono yu ràññeeku ci biir jamono yi def ci biir weeru koor guddi goo xam ne moo gën ci guddi ca guddi googu muy guddi gi laylatul qadar xayrun min alfi shahrin suñu borom moo def loolu ci biir weeru koor xayrun min alfi shahrin googu li muy teg al amalu fiha xayrun min alfi shahrin siwaha jëf ji ngay jëf ci guddi googu jàmm yàlla yi ak lu baax li moo gën nga def ko ci junni guddi yu bokkut ak guddi laylatul xadar kon guddi ku am solo la muy guddi démb gi ca yàlla dana la ci fay ab yool kaza wa kadalika al ajru bokk na ci ngëneel guddi laylatul xadar Imam Raasi dafa wax ne saa yu jant bi fenkee maanaam saa yu fajar fenkee ci mu nekkee ci guddi gi di màggal ba fajar xar nee na Seydina Jibril day woote arraxiil arraxiil mooy lan waaj leen ñu dellu waaj leen ñu dellu su ko defee malaayka dina dañ koy laaj na ko lan la yàlla defal jullit yi ci guddi gu màgg gu tedd gi Seydina Jibril na leen suñ boroom xool na leen ñoom ñépp bëti bi yërmandeem jëggal leen jàmmal leen jéggal leen seeni bàkkaar jàmmam leen jàmmal leen ba mu des ñeenti ñi ñeenti ñi yàlla du leen jéggal du leen jàmmal ci guddi laytul xadar ki ci jiitu mooy naan sàngara bokk yi sàngara baaxul naan sàngara yàlla du ko jéggal li fee tuubu ko wala mu bàyyi kon naan sàngara baaxul loo xam ne day yàq xol di yàq santé dégg nga ñu dikk tudd ko ummul xabaayis gis ngeen jamonoy jamonoy sax jamonoy yonent bi sallallahu alayhi wa ba yàlla ne sàngara njariñ a ngi ci ak lor ñu ne kon nañu naan yàlla ne bu leen jegee julli fekk yéen a ngi naan ñu ne kon balaa julli jot nañu naan Seydina Amar dikk na yow yàlla leeral la ñu am koo xam ne jàng naan na sàngara ba mandi di jàng qul yaa al a naan abudu maa taabuduuna di rek laagi la abudu maa taabuduuna mu a abudu maa taabuduuna yéen kéefar yi maa ngi jaam li ngeen di jaam ina amar na la illa allahuma bayyin lanaa fil xamri bayaanan saafiyan ca la innamaa al xamru wàcc wal maysir ba aay ba aay ba jeex ba àgg ca faalantum muntahuuna ñu génne dam saanu sàngara yi sànni intahay naa intahay naa intahay naa kon guddi gi laylatul xadar naan ko sàngara su borom du ko ci jégal ñaareel bi mooy kan mooy ku yàlla dénk nga leen yi mbugal maanaam àqul ah, waalidayni toppatoo woo leen faale woo leen paa bi dafa nangam mère bi dafa lakkale damaa sonn ci ñoom nangam ak nangam déet wa àqul ah, waalidayni kon wa àqul ah, waalidayni mooy koo xam ne da ngay gàllankoor sa ñaari waajur yàlla du la jéggal ci guddig laalitul xadar googu keneen ki ci des mooy kiy dog ak bokk waxaati orayim mooy koo xam ne day dog ak bokk keneen ki ci des mooy ab rambaajkat ab mooy koo xam ne day ñëw wax kii lii wax kii lii wax kii lii wax kii lii wax kii lii yàgg naa ko nettali ci benn xisa ca mi ngi ci téere bu ñuy wax alkabaayir ki ñëwoon ci soxna jàmbur ne ko damaa bëgg ci sa karaw sikki bi borom kër boo ci daggee jox ma loo bëgg ci alal danaa la ko jox wala ba dikku dem ci borom kër bi ne ko na nga sa soxna mais sa soxna si dégg naa ko naan guddi dana la rey ca moo wax li soxna si soxna si daal su paakam ba mu ñëw rof ci rof ci ren jegeñaay bi borom kër bi tamit tëdd ba guddi di nelaw nelaw ndax kat nekkee nee na ko soxna si dana rey te loolu mi ngi koy bàyyi xel ndaw si jàpp ne borom kër bi mi ngi nelaw mu génne paaka bi jàpp ci sikkim bi bay dagg borom kër bi ne ko laa ilaha illa allah yow waa ji wax li neen woon li mu wax dëgg la nee na man bu guddee soxna dana rey jël jël paaka ba dëbb ci kollu ndaw si ndaw sa faatu mbokki ndaw sa ñëw rey waaja waaja faatu mbokki waaja ñëw rey mbokk yee ñuy mbokk ñu reyante ba dëkk ba ci kaddu rambaaj sëñ bi am na maamu laayee du ko lu ñaan lu yàqu ak lu tas rambaaj ak fen ak yooyu rek moo ko yàq bokk bu tas rambaaj ko tak tas xarit bu tas rambaaj ko tas dégg nga bari na ci sëy yu tas ak rambaaj la ak rambaaj la bokk yi rambaaj baaxul am na maamu laayee du xulul janna alxataabu laayee du xulul janna kon ab rambaajkat yàlla du ko jéggal ci guddi gi laylatul xadar kon ñeenti ñooñu bokk ñu bàyyi ci xar li waral nag su tudde guddi gi guddi gi laylatul qadar lima yaktubu fi hadil malaika min al ajal guddi googu bokk yi ci la suñu borom di yeesalaat lu bëree bëri ñi fekk déwén ak ñu dul fekke déwén yàlla na ñu yàlla boole te ñuy fekk déwén ñi seen wërsëg di dolliku ak ñi seen wërsëg di wàññiku ñu dul am dara xam dul am dara ñëpp ci guddi gémb gii la ko yàlla di yeesalaat bokk na ci li tax ñu alxadar mooy dogal yi alxadar mooy dogal moo tax ñu ne li tax ñu tuddee ko guddi bokk na ci li suñ borom di salaat li nga xam ne mooy xew mooy xew mooy xew déwén moo tax ñu ne fiyaa yufra kullu amri hakim la suñ borom wax ci alquran kon bokk yi wuute gi nga xam ne nag am na ci dañ ko jàpp ne yërmande la ren jii moom ñëpp a ko bokk a jullit yi bay yépp ñoo ko bokk a màggalandoo yal na yàlla nangu ñaan yi ci doon ñaan yëpp loolu nag bum tee yeneen guddi yi daan wuutee ñee di màggal ñee di màggal bu dee bu kenn bu kenn jàpp ne kee am guddi laytul kee moo am déedéet ñëpp am yoolu guddi laytul xadar ndax lépp sunna la lépp sunna la sunna moo yaatu loolee nag kon ixtilaaf boobu bokk yi ñu bàyyi xel ne lu am solo la sun mag ñi fi jaaroon Cheikh Ahmad Bamba maam Alaaji Malik maa Ibrahima ñas dégg nga maam bu Kunta ak ñu mel ne ñu mel na ñooñu bu laylatul bu weeru koor masaana feeñ ñoom dañuy jàpp ne li feeg weer wariwul guddi gu ci nekk dañ ko daan jàpp guddi laylatul xadar daw ñu nappalu ci jaamu yàlla daw ñu napp ci daw ñu napp lu ci sarxe daw ñu napp ci def lu baax lolé moy di ak jaam lolé moy di ak julli mo waral ben borom xam-xam bu ñu wax cheikh baba mahmoud adaymani bi mi tag cheikhul xadim da ne huwa shaykh yad'u lin najati min ar arrada huwa shaykh yad'u li ibadati wa shikri ne sëriñ bobu moy sëriñ bi wote maanaam jëme jëme nit ñi ci mucc ci alkande waaye mooy sëriñ bi woote jëmale nit ki ci jaamu ak zikar foofu la sëriñ bi ne bari na ju ne askanal sëriñ bi sëriñ bi nekku ci de sëriñ Tuubaa diine ju wax tar la nekk ku nekk ci caaxaan yaa ci nekk ku nekk ci fo yaa ci nekk loo def bëgg ko askanal yaa ko askan sa bopp waaye sëriñ bi ma suna su weex tar la nekk mag ñi fi jaaroon diine ju sell la nekk képp ku dikk bëgg koo tilim yaay tilim waaye mu diine ju sell la fi nekk loolu nan ci bàyyi xel لأن يقوم الليالي ليلة بعد ليلة فكل الليالي عنده ليلة القدر نار بي نينا سيغ توبا موم دا دا دا دا دافون بيب غودي سي غودي وير كور غودي ليلة القدر سيغ توبا جابول غودي ليلة القدر سيغ توبا جابول مورا سيغ توبا دا لا نيان وفي بارك ثم حب لي عمرا كليلة القدر يو يالا نك ما باركل وبارك فيها waaye nag nag ma may dund goo xam day mel day mel guddig laylatul comme lu la ma may dund day comme guddig lay xadar bi jaayil busra ci darajay yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxaan na batay tey ne moom bëgg gi yàlla beug ko ahlu badar mujjina ak dundam mom seigne touba lépp melna na lay laylatul xadar hubbi wa li ahli shayyara al umri kal al qadri sama mujj sama dund mujjina guddi yi dund gépp mujj guddi guddi lay xadar ngir ma màggaay guddi lay xadar mo waral fi mujjitele moy mooy la Abu Talib al Makki yi waxee Abu Talib al Makki dafa waxoon bépp guddi ci guddik weeru koor ñooñu aarif billahi ñoom guddi yëpp dañ koo jàpp ne guddi guddi nekk rek guddi laylatul xadar kullu laylatin lil lil aarifi laylatul xadar kon loolu mbokk yi buñ ci jàpp ci wuutee gi ci am yërmande la sunna la kenn ku ci nekk bàyyi bàyyi ci xel kenn ku ci nekk ci ñun bàyyi ci xel di leen soññu ci li bayaankat bi doon soññee muy azakay murum koor ku ko yàlla man loo tey ji sama noo ko tàmbalee génne wala suba noonu ma ko doon waxee rek kenn ku ci nekk la la ngay dundee nga génne ko ca ngir yàlla kan ko joxit bu ñu ko joxee ba ba am lu mu dundee ca bis ba desal dara moom mu génne yàlla noonu defal dégg ak top rabbana atina fi dunya hasanatan wa ba akhirati hasanatan wa qina azaban rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna al-ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna al-ijtinab وكن معيسا لنا من شر شهتد المعصر فمن وشر عين الله وشر سهر وشر قلق ذي مناد جني والضوارث يا الله طول لنا عمرنا طحي لنا بدن وحب لنا رشدا والتوفيق يا الله وضمنا كل أعداء تدر بنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله أقول قولي هذا وشفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين